tey jii nag li tax ñu daje weesu du dut waxtaane li ñu bokk waaye tamit di interpeller mbooleem ñi nga xam ne responsable lañ ci lii di xew ci dëkk bi bis bu set ñu fiy dégg lu fi kenn mës a dégg néewaan na ngay toog wenn weer wala semaine boo xam déggoo bàkkan bu ñu faat te la koy waral mooy moo xam ci kaw viol la moo xam fo foqat ci alali jàmbur la ndax kii fob dina bu moom day sàcc waaye kii foqat alali jàmbur agression lay def saa su ne ñu dégg fi ay bakkan yu fi ñu koy def bëccëg di ko def guddi loole nag la ñu taxaw ne ñun ñi nga xam ne dañuy yaxanantu ci dëkk bi di liggéey te itam amuñu lu dul Touba sécurité wu Touba yitteel ñu arrête doy na doy gi mu doy nag moo tax te ji ñu teew ci barab bi toog ak suñu magi commerçant yi toog waaye itam toog ak suñu délégué marché suñuy kàddu itam ñu koy jaarale ci moom ngir mu jotal ñu ko monsieur le maire jaarale ñu ko itam ci sous-préfet ak gouver ak ak préfet ak sous ñu ko itam ci gouverneur ak police ak gendarmerie itam bu ñuy waxtaane ab marché itam ñun ñëpp am na ci part de te yaakaar naa lii xew ci marché bi kenn ku nekk ñun teg na ci bëtam la ko waral nag xamuñ ko woon démb ak barki démb waaye li ci suñu kanam moom lañ moom lañ fas yéene taxaw ñi ñu toog ni tey di témoin waxuñ ngir seen démb kepp ñun tam toogaluñ leen fi ñoom waaye leen daal mën naa dal kenn ku nekk ci ñun sàcc warta yomb boo sàccee itam foo ko yóbbu warta yomb boo ko yóbboo itam ba pare itam foo ko jaayee warta yomb te dégg nañ léegi yi ni ko waxee mooy dañuy fab sa alal sàcc ko danañ ko yóbbu doo ko gis danañ ko jaay itam doo ci teg sa bët te lu ci nekk bu lépp jaaroon nam war a jaar warta mën a demee noonu tey insécurité bi itam ni muy amee ci guddi yi bañ ko daan jàmbat noonu lay amee ci bëccëg ba kenn ku nekk jon teg ci bëtam ci diir bu gàtt dégg ngeen léegi kii fi doon def témoignage ci sëriñ Xaarim Cuuraay li ñu ko def fab 2 millions ak weccet wu tàkk wuñ jël ci place am na bët kon nag ñi ngi interpellé police ak gendarmerie ak ñi nga xam ne ñi responsable dëkk bi ñu gën ñoo dimbali suñu wàllum sécurité ci barab bi ñuy liggéeyee waaye itam dimbali ñu itam ci barab bi ñu dëkk itam waaye dimbali ñu itam ci boutique yi nga xam ne itam ñoo nekk ci koñ yi ndax sàcc gi nii mu taree ci marché yi noonu la tare ci boutique yi koñ yi noonu la tare ci biir kër yi itam te ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg ñoo bokk itam lu ñuy xeex te mooy sécurité la ñu soxla ci suñu jëmm ndax mënuñ mënuñoo dund sans sécurité ndax sécurité moo war a jiitu ci lépp diine sax bala nga ko mën a bala ngaa mën a dund sa diine nga ko war a dundee faaw sécurité day jiitu tey nag li ñu war a waxtaane bari na mm-hmm. waaye nag li tax conférence de presse bi am mooy alerte xam le ne ñi koy dund te génnuñu pare nañ ngir lii dàkk nu muy dàkkee nag mooy suñuy kilifa la ñuy jiital moo xam ci turu association ACIS bi nga xam ne dañoo jóg ngir lëkkale mbooleem kuréel yi nekk ci biir Touba yëpp waaye tamit ànd ak suñu ay délégué de marché bu ñu ko waxee de marché occas rek taxul mbooleem marché yi nekk ci Touba yëpp ak képp koo xam ne yor nga bitigub koñ baa ngay yar ak ginaar sax sa biir kër wala am xar la ñu fas yéene mooy lu waaye tegati fa nga ko teg mu ànd ak boo xam ne fa ko tegoon da ko fa fekkaat wala suñu ko jëlee itam la ca war am ba mu desuwaat say loxo dana am loolu lu ñu xañoon kàddu de xaw ma lu mu waaye li ci suñu kanam moom fas nañu yéene ñu ñu jiital bu ñu joxañatee bu nañu joxañ nañu bàyyi xel ci ne kii di joxañ joxañu mbooloo mi la ndax mbooloo mee ko joxañ loo suñu waxatee itam nañu leen déglu tax ne mbooloo mee leen di wax loo suñu yëkkatee seen loxo daañu ko yëkkati bu ñu toogee danañ toog bu ñu jugee danañ jug la ñaa la ñàkkoon daal ba tax kenn ku nekk di di di jooytu ci ab ruqam lu ne di xew taxaw nañ ngir mu dakk te dara duñu ko may lu dul ñu booloo booloo googu moo waral ñu daje tey te duñ ci yam danañ dajale mbooleem marché yëpp dajale mbooleem boutique yëpp cépp ku nekk ci dëkk bi waxtaane sécurité bi nga xam ne ñàkk nañ ko ci biir dëkk bi ñàkk ko ci marché yi ñàkk ko itam ci bëccëgi marché yi ndax ci guddi lañ ko daan ñàkk waaye léegi bëccëgi sax dajee raxaale loolu nag lañ taxaw ne dana dakk na dakk na dakk dañ koy ànd ak ñëpp ñu ngi ko war a àndal lii la te bu ñu paree itam fas nañ yéene waxtaane nan lañu war a mën a def ba lii dakk tey tamit ñi ko doon defit tala weesu duñ ko bàyyi duñ ko suul mukk mu mu seey ñi ñàkk seen alal bëgg nañ ñu taxaw taxawaay ba ci war ba seen i alal dellu si ñi fi seen alal nekk itam ñu sàmmal ko ba dee soo ko jël waaye buñ ko jëlee itam fu ko waay jëlee foo ko yóbbu ne la foo ko jaay itam bul ko am kon nag loolu mooy li ñu tax a jóg tàmbali nañ ko tey jii combat la boo xam nañ koy continuer ndax dañuy liggéey te kuy liggéey ku ne war ngaa sàmm sa te mooy bu ñu ko fobee ñoo leen gisati kuñ ci fob sa alal ci ñun ñi itam foofee rek ngay jaar ndax ñun ñu yaakaar képp lañu yaakaar fu ñu jëm képp lañ jëm ñi ñi ñuy itam képp lañuy ko dundee ni ñu koy dundee képp lañ koy dundee dëkk bi nag insécurité bi jéggi na dayoo te dara warlu ko itam nu dut am rax moo ci bari am na ci loo xam ne ñi ko dëkkee ñoo koy def waaye am na ci loo xam ne tamit étranger ñoo koy def moo tax bëgg nañ ci dëkk bi autorité ñu taxaw temm ci dëkk bi li fi ñu identifier leen xam leen bu nax nit wala koy seetu ci ak bi saa su ne jamono bu ne nga fay dem di ko fa fekki su la defee jiyee ba nga waaxuwaat ñëw ci kër ga boo laajee borom kër ga moom dafay luye woon képp yor sa kër dëkk sa ñeenti néeg lu yëb néeg wala boog aw nit dëkk ci ab ñëw ñëw ci koñ dugg si ba luye ab néeg képp amuñu seen photocopie carte d'identité amuñu seen dara wala ñëw ci marché nga bu sa bureet képp ko la jox sa bagage nga teggeeg moom mëneesu laa wër xamuñ sa numéro xamuñ yaay kan loolu yi moom taxaw nañ ci biir dëkk bi ci biir marché bi lépp na dakk na dakk googu nag moo ñu tax a teew jaarale kàddu itam ci ki nga xam ne moo leen fi représenté délégué de marché ak mag ñi mu àndal waaye tamit fas yéene itam mu jàll ci mbooleem autorité yi nekk Touba ak kilifa yi nekk Touba bañ xam ne ñu ngi bëgg a dee te sonn nañ te itam bëgg nañ li saafara wasalaamaaleykum